trop hmm. par rapport à sa question jàpp naa ni li président Macky Sall bëgg a def mooy instaurer une crise institutionnelle au Sénégal xam nga sànq nee naa dafa inventer une crise virtuelle mu jugee ci confrontation bi am entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire pour ni au nom de l'article 42. Mhm. il est le fon euh, le gardien du fonctionnement régulier des institutions donc dafay jël sa responsabilité pour abroger le décret qui a convoqué le corps électoral. mais lim nar a def bu fekkee l' article 31 de la constitution sera modifié aujourd'hui loolu moo nar a gën a graaw la déclaration bi mu def parce que article 31 dafay wax ni dañoo war a fixer la date du scrutin au plus tard au maximum 45 jours avant l'expiration du mandat du président au minimum 30 jours donc ça doit être entre février au plus tard le 2 mars parce que le président de la République la date d'expiration de son mandat à la kuliyal au regard de l'article 27 et 103 de la Constitution c'est le 2 avril mhm. bu fekkee dañoo modifier maintenant l'article 31 ñu repousser les élections de 6 mois mais dafay violer de manière très flagrante l'article 103 bi nga xam ni dafa wax les dispositions de l'article 27 sont intangibles maanaam on peut pas les modifier bu ñu ko bëggee modifier il faut ñu adopter une nouvelle constitution rédiger waat constitution bu bees dem référendum comme 2016 yokkaat li nga xam moom mooy le mandat du président mais que jaar loolu mooy crise institutionnelle maintenant conséquence bi nga ci tiré mooy lan article euh, boo jëlee alinéa 3 article 31 bi wax euh, les questions de vacances du pouvoir. Mm-hmm. ala kulli le 3 avril président Macky mënatul nekk président de la République du Sénégal sinon amatul cette prérogative là d'être le gardien de la constitution parce que on peut pas être le gardien de la constitution di violer de manière flagrante a nekk. qu'est-ce qui va se passer vacances du pouvoir qu'est-ce qu'on va constater le, le président de l'Assemblée nationale va constater vacances du pouvoir et va devenir de surcroît l'intérimaire mmh. et il va avoir trois trois mois pour organiser des élections mais lan moo ko fi jar lan moo ko motiver lan moo motiver non mais sànq wax nga junn ko say wax peut-être dañ cee àggul question politique qu'on veut régler dans l'espace public et dans l'espace institutionnel alors que ça jàpp naa ni les considérations politiques mmh. ne doivent pas être au-dessus même des lois et des actions de la République mhm. xam nga tey ji ce qui a caractérisé la gouvernance du président Macky Sall sànq mi ngi wax nee na on peut pas attaquer le bilan du président Macky Sall du point de vue matériel même bu fekkee c'est relatif parce que on peut l'attaquer sur plusieurs fronts du point de vue matériel mais ñu concédé ko loolu il a un bilan matériel qu'il peut défendre c'est bien que le caractère immatériel du bilan moom mu ëpp solo le caractère matériel parce que il a pris des engagements yoo xam ni à chaque fois à l'aune aussi de l'exécution de ces engagements bu nekk dañuy gis dafa remettre en cause dafa dem ba dañu am l'affaissement même de la parole donnée dans l'espace public à travers la gouvernance du président Macky la bonne gouvernance la corruption nekk des problématiques qui sont structurelles qui ont traversé surtout son second mandat mm-hmm. jàppoon la gestion des des de, de, des forces comme Covid-19 les milliards là jëlu woon commission d'enquête parlementaire jàppoo leen ni la gestion même du plan décennal des inondations de 750 milliards jaru woon Euh, commission d'enquête parlementaire ah oui des fonds alloués au, à, la, à la gestion de de la lutte contre le, le, le l'immigration clandestine boobu aussi mooy lool loolu jël commission d'enquête parlementaire maintenant dañuy jël parce que tout simplement dem na ba constater que à travers des faits politiques que son candidat ne peut plus gagner les élections dem nañu jàppoon nañu à l'issue même de dialogue qu'il a organisé mhm. joxo nañ des assurances et des garanties il y a un candidat oui dina bokk à la fin bokkul et que na on veut transposer ces problèmes là politiques purement internes des partis ou des coalitions ñu indi ko dans l'espace public di manipuler les institutions et de la constitution instaurer une crise virtuelle pour pouvoir maintenant aller vers une, une, une crise qui réelle donc tey jàpp naa ni bis bu ñu adopté l'article 31 mhm. on va droit vers une crise et là je pense que dañuy réitérer le propos du président euh, Pape Djibril on interpelle la responsabilité des députés aujourd'hui 23 juin soriwul de mhm. et c'était des députés qui ont pris la responsa leur responsabilité sous la pression certes euh, de la population mais qui ont pris leur responsabilité ni loi bi nga xam ne moom mooy instaurer le cadre bloquant ils vont pas le voter jàpp tey aussi les députés de la majorité ak aussi certains de leurs alliés même bu fekkee am nañ les quatre-vingt-dix-neuf aujourd'hui à travers les trois cinquièmes jàpp nañ ils doivent avoir leur conscience politique et aussi interroger l'histoire parce que tey jii bépp acte bu ñu posé. suba histoire dina ko dina ko écrire. jàpp nga ni ak lu ñu def nii seen initiative bi dinañu. <laughs> dellu ginnaaw. consciencieux ba dellu ginnaaw ne lii duñu ko voté jàpp nga ni loolu dina am. xam nga surprise mën na am si mbir no mais en fait xaaruñu ci surprise parce que ku am jàpp naa ne ku am. <laughs> parce que si ça passe pas c'est ci surprise. Mm. on ne fait appeler leur conscience de la même manière que tey jii nii boo xoolee l'opposition euh, c'est pas euh, xam nga généralement nit ñi dañuy critiquer naan opposition bi oui euh, pourquoi il laisse faire le président Macky l'opposition ne laisse pas faire le président Macky Sall mais l'opposition c'est pas une force ou un mouvement insurrectionnel xam nga lu mu am les alerte conscientisation la mën alerte la mën de la même manière aussi tamit ce qui va se passer à l'action nationale dénonciation la ñu mën alerter et conscientiser. Mhm. appeler à faire face par rapport à leur responsabilité de prendre leur responsabilité face à l'histoire mais face aussi euh, au peuple sénégalais de ne pas voter euh, la modification de l'article 31. Mm maintenant bu ñu jëlee la responsabilité de le voter lépp lu ci mu ci am le président Macky Sall xam il est. alors euh, abroger la mhm. donc si jamais. Euh, juridiquement il n'a pas encore abrogé la loi. Okay. parce que actuellement amagul benn décret boo xam ne c'est publié au niveau du journal officiel. bi abroger la le, le décret bi convoqué le corps électoral. de la si ça xam nga tey jii ni situation de non droit lañ nekk. Mm. il a juste fait une déclaration. Mm-hmm. et la déclaration du président Macky c'est juste une déclaration. amul benn effet juridique c'est une déclaration. il l'article bi jox le prérogative président de la République de prendre des décrets et des ordonnances loolu moo am un effet juridique. Mhm. mais la déclaration du président de la République et le conseil constitutionnel daf ko rappeler en 2016 que cette déclaration c'est une déclaration purement politique. mais amul benn effet juridique parce ci loolu laa bëgg a wax mooy situation de nos droits bi. mënoo def une déclaration bu amul benn effet juridique nga ni cette déclaration dafa abroger un acte juridique amagul benn décret boo xam ne c'est publié journal officiel boo xam dafa abroger le décret qui a convoqué le corps électoral alors que lorsque il n'y a pas un décret qui a abrogé le corps électoral juridiquement c'est parce qu'on est toujours dans le processus électoral mhm. bu nekkee dans le processus électoral euh, campagne waroon na commencer le trois à partir de minuit démb nga gis opposition bi ni dañuy dañuy def à l'unanimité def euh, ouverture conjointe de la campagne ñu ñu ñu di leen bastionner di leen ah, euh, di leen di leen toroxal de manière bi ñu ko gisee je pense que ni loolu moom mooy forfaiture loolu mooy la violation flagrante de la constitution euh,